li sadinatan bikun may njëkkee ci sama cadre rek mooy sant yàlla bu baax ndax bis bi mel na ne ndigal la lu jóge woon ci président fédération bi muy sëñ Moustapha mu sëñ Cheikh Gaïndé Fatma waxoon ñu ne bëgg nañuy ziar ji sëriñu bala ñoo woor am ñu ko baxee ba léegi itam ñu koy wàcc ànd ko ak fédération bi yëpp muy section yi nga xam ne ñoo bootu ci biir fédération bi yëpp itam ànd ko aussi ak diaspora bi booba léegi ñu ngi nas di xalaat di tënk ngir rek bis bi réussir mu ci ayib waaye itam ñu sant yàlla bu baax ndax waajtaay woowu def nañ ko ni mu waree li ci des lépp na ñu bàyyi suñu borom waaye bu ñu agsee jataay bi jàpp naa ne képp ku fi teewoon tey am nga yëg-yëg am nga xol bu sedd guyu ci ne jotaay bi moom suñu borom defal nañu lu kawe si njort ndax ki nga xam ne moo toogee jotaayu Cheikhul Khadim génn na jàkkaarloo ak mbooloo mi xool leen itam waaye itam mu yëkk fi ay kaddu yoo xam ne ni jàpp naa ne mënaguma wax sax dëgg-dëgg ci jataay bi li ma ci yëgee il faut ma dem dégluwaat ko décortiquer ko analyser ko man cee tënk ay points yoo xam ne ni xëy na ëllëg dinaa ko mën a chara waaye ci globalement ni ñu ko mën a tënkee mooy sëñ bi wax nañu ak yëg-yëg bu sori ci moom te yëg ba itam mu tàmbalee fu sore te waxal na ko boppam mu tàmbale ci diggante Cheikh Mamadou Moustapha ak sëñ Cheikh Mamadou Bachir waaye moom digganteem moom ak sëñ Cheikh waaye itam digganteem ak njabaru sëñ Cheikh gi mu fi bàyyi itam waaye digganteem ak njabaru sëñ Tuubaa gi yëpp mu mel ne itam ni ñu àndee itam euh, gis na ko bu baax te nee loolu rek mooy li gën mooy bala ñoo mën a am li ñu bëgg ñun taalibe yëpp faaw la ñuy ànd doon nekk benn comme ni ñu ko defee tey loolu jàpp na jàngat bu am solo la. troisièmement wax na ci wàllum xam-xam muy lu am solo loo xam itam ku koy yëkkati jotaay bu mel nii nga xam ne njabootu suñu Cheikh ñoo fi mel na ne euh, ab ab soññee lay doon ci nun waaye itam am njàngan mu réeréer la ci xam ne nekkati yow Serigne Cheikh ba muy pesé genre euh, yu njëkk yi ci yëkkati njàng mi. ci jëmmal am njàng moo xam njàngum tubaab la moo xam njàngum nasaraan la ngir xeex ak réer loola mel na ne suñ borom mi ngi koy gën a defal ndam mi ngi koy gën may dëgg ndax kenn ku nekk ni ko sëñ bi wax dégg na ko mooy li ñu bëgg lépp daal problème yi am yëpp jafe-jafe yi am lépp li ñu ko mën a may mooy rek ñu sóobu ci xam-xam nit ñi dañu agréer kon jàpp naa discours bi li ci ëpp ci xam-xam la jëm ak rafetlu jataay bi ci wàllu bennoo gi ak relation yi nga xam ne amoon diggante Darou Khoudoss ak diggante Cheikh Mouhamadou Moustapha vraiment muy loo xam ne nii li ma ci senti dafa sori ci man tellement que xam naa dama ciy delluwaat jàngataat ko bind ci soo ko mën a tasaare incha allah waaye daal xool sedd na guy mbooloo mi contesel mi ngi bég mi ngi raay ndax vraiment message bi sëriñ mi joxe dafa sedd xol ndax daf ko yëkkati ci làmmiñu boppam waaye itam mu yëkkati ko itam ci yëkkati goo xam ne ànd naag pas-pas ànd naag Pastef yëg-yëg bu sori la ci moom jàpp naa ne loolu jàngat naa ko ci waxtaan wi xam naa ne bu ñu dajawaatee incha allah nañ ci gën a yaatal gën cee xóotal kon yéen itam ñu ngi leen sant bu baax a baax yéen waa communication ci taxawaay yu am solo yi ngeen ci am ak itam liggéey bu liggéey rëy bi ngeen ci liggéey avant ndax liggéey bi ngeen ci liggéey lu jiitu bis bi moo waral lii am tey mooy tasaare ngeen message bi ñëpp jot nañ ci sensibiliser ngeen nit ñi vraiment ba ñëpp teew tey alhamdulilah rabbil alamin maa ngi lay gërëm bu baax di la sant wasalaamaaleykum wa rahmatullah siyaar bi ànd naag ak taalibe ànd naag Pastef waa Daaru Xuddoos doxinu sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma rek lañ joxe yéene ju ànd ak xam-xam ak Pastef yàlla na fi sëñ Muntaxa yàgg ak mboolem jullit ci barke Seydina Mohamed barke Cheikh Moustapha. ma ne sunu xol sedd guy tubaarkaal la kontaan nañu yal nañ ko siyaare siyaare ko sëriñ bi yal na fi yàgg te wér nu yàgg fi te wér sunu njiit yi waa kër sëñ Cheikh Fatma Ñeeng waa Daaru Xuddos yal na leen fi yàlla bàyyi sëti Cheikh Moustapha ak sëriñ Basiru yal na fi yàlla ba banu fi yal na yàlla baaxal lépp yal nañ fekk lépp ca ko sëñ Muntaxa Mbàkke yal na fi yàgg yàgg ah, ñoo ngi ziar mbokki taalibe yëpp di sant ñëpp wax dëgg di rafetlu jataay bi ndax yaakaar naa ne ku ñëw tey jii ci jataay bi war nga xam ne sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo fii tey sëñ Tuubaa xam na mbooloo mi ko ñëwoon tey ji doon ziyaare ji xam na dëgg dëgg dëgg lan mooy mbooloo mi xam na mbooloo mi lan mooy seen taxawaay wax dëgg yàlla. ngi sant soxna yi ñëwoon ci ziar bi ñëpp. di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla delloo nañ ci jàmm ak salaam ku fi ku nekk yàlla na nga dellu jàmm ak salaam yokku nag ba yëg ko loo yoo amoon ba tiit yoo amoon yàlla na yam tey yàlla na say jàqare ak say jafe-jafe yëpp yem tey yàlla na ñëpp dellu ci jàmm ak salaam bañ a am benn ndokk ci barke sëriñ Mountakha mi siyaare ñoo ngi sant sëriñ Mbacke Soxna Lo wér a ndax ko xam ne siyaare bi moom soo soo gisee mbooloo mi gis ni mel nga xam ne euh, jàppante ak déggoo ak booloo rek am solo te li lépp nag kenn kekk li na nag kenn war a liggéeyu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke sëriñ Mbacke Soxna Lo doom ju baax ñëw àggale ko bàyyi fi Cheikh Abdou Fatah Mbacké mu ñëw di ko suuxat bàyyi fi rakam yu baax yi ñu ko yeggale nañu nañu ñëpp boole ñu cet ak musiba ak balaa ba lépp loo xam ne bëgg nañ ko àggale ci suñu wilaay bi yàlla na ko yàlla ak Serigne Mbacké Solo àggale te ànd ak wér ak jàmm ak xéewal ci bàkk Cheikh Khadim a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim laa hawla wala quwwata illaa billahil azim hasbunallahu wa ni'mal wakiil salaamaaleykum wa rahmatullah eh, sëñ Bada jërëjëf eh, ñoo ngi sant yàlla bu baax ci bés bi ndax ku ne xam na ne ba ñu tàmbalee di waaj bés bi dañoo ñaanoon sunu borom ne ko nañu may ñu fekkee bés bi te buñ ko fekkee ba pare nañ ci may tawféex ba ñu organiser ko niñ ko bëggee ba mu jàll jàmm kon sunu borom bu ñu mayee ba sëriñ bi ñëw teew mu demee noonu ñoo ngi ko ciy sant bu baax di ñaan yàlla ñu fekkee waat ko sëñ mu taxaa yàgg fi waaye li am solo mooy Euh, daje yi nga xam ne yàlla dogal na ñu daje ko di ko waajee bis bi li ci njëkk mooy bureau fédéral bi nga xam ne moo jiite liggéey bi daje joxe ay orientation commission comité bi daje joxe joxe ay directives commission yi daje ñu tënk ci yooyu tënk rek la ñu doxee baag si fii mel na ne dëkk yi tamit information bi nga xam ne moom la ñu joxe ci section yi kenn ku ci nekk war koo waaj kenn ku ci nekk dégg ndigal yi mel na ne jëfee nañ ko ndax tardement bi fa mu waroon a amee sunu borom suturaal nañu ba waxtu yu ñuy wax euh, nit ñi nañ ci ñëw ca béyti def nañ ko ñëw bi fii tamit mooy ñëw ci ànd dal toog toogaayu taalibe mel na loolu loolu tamit nit ñi def nañ ko mel na la ca des tamit mooy euh, euh, mbir mu ne saa soo waxtaanee ba tënk rek na la yàlla dimbale ba nga jëf mbooloo mi jëf nañu waaye ñoo ngi sant bu baax ci ndigal yi ñu joxe woon nit ñi ñëw nañ ci dal dégg nañu ndigal li mooy nañu dal ñëw nànk toog toogaayu euh, taalibe déglu sëriñ bi ñoo ngi sant bu baax jërë ngeen jëf tarkala li sadinatan bi kun lil min daari minan yaatal minna